waaw asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan à travers le net tey nag dañu ñëw fii ci poste de santé centre de santé Kër Maas sàmba sàll yéen ñëpp ñi ngi seetaan xam ngeen ay fan a ngi ci ginnaaw amoon na lu doon def muy dox doxum ñaxtu ba morso yu xonk génnoon ba ñu amoon ay jafe-jafe yu nu wax ne dañ koy dund ci fii nga xam ni sama président bu baax bi nga xam ni mooy Abdoulaye Ndiaye Ngalgou fii la ganee jamono. ba tax na mu xawoon a ralentir tuuti paj mi ndax bëggoon ambulance boo xam ni dañ koy mën a moom fii muy évacuer bu amee lu leen jaaxal. yàlla dogal nag ki nga xam ne moom la ñu tuddee la solution mooy le président du mouvement ànd defar Abdoulaye Ndiaye Ngalgou bi mu tàbbee ci noppam vidéo bi mu déglu ko. waaye nag mu bu ngeen demee kii présider ki ma fay taxawal kii teew teewaayu Abdoulaye Ndiaye Ngalgou mooy honorable député Assoukane Sall mu baax mi nga xam ne kuy wax wàllu santé ci réew mi di ko ci boole Abdoulaye Ndiaye Ngalgou nag joxe na ambulance bi xam naa ni yéen a ngi ñii di dégg suñuy wax ci kanam dinañ def simple remise symbolique bi ci biir ambulance bi ba ngeen xam ni kat tungu ni duñu teew ñuy nataal donc keroog ñi nekkoon man maa jiite woon nu disons non Mais aujourd'hui, je dis que nous, nous disons, disons oui, oui, oui à Ablaye Ndiaye <laughs> Donc man euh, defe naa euh, maîtresse bu waxee ba pare je pense que sax moom elle a elle a tout dit donc man juste que damay wax ne Ablaye Ndiaye amuñu payam Ablaye Ndiaye yàlla rek lañ koy bàyyeel ndax wax naa ko waxati ko nee naa heure bu suñu bët xonqee gisuñu kenn ku dul Ablaye Ndiaye ko gisuñu kenn ku dul Ablaye Ndiaye Ngalgou dégguñu kenn ku dul Ablaye Ndiaye Ngalgou kon Ablaye Ndiaye ñu ngi lay ñaanal wér gudd fan bu suñu bët xonkee dinañ la mën a gis parce que ñu ngi lay gis ba boobu ba boobu ba tey avant corona corona bi ba tey kon donc ñu ngi wax Ablaye Ndiaye Ngalgou jaaraama merci beaucoup. di leen wax ne tey dañu am mbégte bu mag a mag foog naa bi ñu toogee di jooy c'était le mardi passé une semaine moins d'une semaine. ñu taxaw di ree te loolu grâce à monsieur Abdoulaye Ndiaye Ngalgou donc ñu toogee di jooy ambulance mën naa ne warul woon ci Tiwaawoon comme ni ma ko waxee woon dëkk bi yaa na macha allah borom daraja ñi ngi fi yeewoo ku ci nekk mënoon na tey taxawal ambulance fii ne daka may centre de santé Massamba Sall kon moom su nekkee koo xam ne def na ko di ko defaat ñun lu duñ def lu dul di ko sant di ko gërëm ndax mënoon na ko yóbbu feneen waaye defu ko bu ñu yuuxoo même pas deux heures de temps ci la bi mu eggee ci noppam ci la ñu am nouvelle ne de may nañu ambulance ñu doon xaar le jour J mooy remise symbolique bi kon sant nañ ko cant boo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem ñu xamal nag ñi nga xam ne ñoom la ñu jox ñu xam liñ leen jox lan la nañ ko toppatoo. dégg naa nag nit ñi di wax mais bu ñu waxantee dëgg euh, Ablaye Ndiaye jëfam du du tey jii parce que CRS bii bii passé man ci laa bokkoon te aussi tamit am na ay action yu bari yoo xamante ni def na ko fi te yooyu j'étais témoin donc valeur presque trois cent millions yoo xamante ni korog bi ñuy def fi matériel mois je pense que ni yem na ñëpp mm-hmm. donc lii man yéemu wax dëgg yàlla. mais nag aussi tamit bu nit defee lu baax da nga ko koy wax parce que remercier ko aussi mooy tax mu gën a góorgóorlu di wax ne aussi tamit comme ni ko euh, ñi ma wuutu wax moi je pense que ni centre de santé problème yi bari na trop problème yi bari na trop problème yi bari na trop ñuy dañu lancé waat appel aussi képp koo xamante ni doomu Tivaouane nga nga war cee mën a jàpp jàpp ci nuñu parce que aussi niveau bi war nañ ko mën a gën a yéegal ba mu parce boo xoolee macha allah ñi nga xamante ni ñoo ne ci santé bi ay jàmbaar lañu du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg nekk à la disposition des populations pour bëgg rek satisfaire leen li des nag moom mooy ay jumtuwaay yoo xamante ni yu xareñ yoo xamante ni wax dëgg yàlla képp ku fi ñëw bëgg a faju bu baax li nga xamante ni mooy service bi nga bëgg di nga ko fekk te loolu aussi ñu ngi ciy remercier ki nga xamante ni mooy la médecin chef du district ak ki nga xamante ni aussi tamit mooy docteur Khady mi nga xamante ni moom la le médecin chef du mu mu nekk aussi tamit ku disponible koo xamante ne aussi am na ouverture aussi ci liggéey bi nga xamante ni moom lañ nekk moom daal ñu ngi gërëm ñëpp comme ni ma ko waxee di sant ñëpp di wax ni daal vraiment le centre de santé euh, problème yi bari na bëgg nañu képp koo xamante ne doomu Tivaouane nga muy muy personne personnes ressources muy les chefs religieux ñu leen di lancer appel ñu ñëw jàpp ci Ablaye Ndiaye Ngalgou nag moom wax dëgg yàlla mention spéciale pour dire vrai parce que Euh, du tey mooy jëfam jëfam daal yàgg na ci centre de santé di gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf. waaw. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu Serigne Babacar Sy Mansour ak euh, képp ku bokk ci famille Cheikh Seydi El Hadj di nuyu famille maam Serigne Touba di nuyu kilifa diine yi nekk ci département bi yëpp di jël fii kàddu nag. ci turu président Ablaye Ndiaye Ngalgou président Ablaye Ndiaye Ngalgou mi nga xamante ni mooy partenaire stratégique bu centre de santé bi mais partenaire stratégique aussi la fas yéene nekk ci district yi nga xam ne ñu ngi nekk ci département Tivaouane lii mu def fii fas yéene na ko def fépp foo xamante ni nii nit ñaa ngi fay yëndu ci wàll war gi yaram kon mun nañoo wax ne Ablaye Ndiaye moom mooy partenaire population Tivaouane ñu ngi koy sant di ko gërëm di wax alhamdulilahi rabbil alamin nag bi ko yàlla mayee mu am opportunité fu nit ñi jooyee mu ñëw taxaw kon loolu da koy sante yàlla bu baax a baax a baax da ciy sant yàlla ñu ñaanal ko nag bu baax a baax gën koo taxaw gën koo jàppale gën a ànd ak moom di nuyu docteur Khady ak euh, docteur Pape Camara ak personnel bi nga xamante ne nii da leen ànd ak ñoom di liggéey docteur Khady yàggagoo fi mais yaa gaaw ñu gaaw ndax wax dëgg yàlla ni nga taxawee ci centre de santé bi ci dëkk bi la ñu dëkk xam nañ ko bu baax yaa ngi tabax yaa ngi defar vraiment ñoo ngi lay sant di la gërëm di la encourager ndax suñu doom nga ñun bu ñu gisee jigéen buy def lu baax rek dañuy kontaan ci moom kon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di sant major njuuk ak l'ensemble du personnel di leen wax nag Ablaye Ndiaye tàllaloon leen loxo démb tey la ko gën a tàllal xëy na lii moo nekkoon urgence bi mais li ci des mu ngi ci yoon bi jàpp naa ni ça fait une semaine wala dix jours yu ñu fi yu ma fi jaar man ak Bali di ñëw di jël seen karne de doléance te ni ñu ko defee fii noonu lañ ko defee dans l'ensemble des postes de santé du département kon kooku am na yéene ci Tivaouane fas yéene naa def ci Tivaouane kon nañ ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla eggale lépp waa presse bi ñu ngi leen di remercier bu baax a baax yéen tamit ci seen taxawaay damay commencer nag par remercier euh, monsieur Ndiaye ndax moom moo fi indi teranga ngi koy remercier bu baax a baax a baax di ñaan yàlla lii mu mbébét tamit ci centre de santé bi yàlla may ko wér may ko fekkee ak tal ba mu eggali ko man nag sama remerciement dama koy adressé à la euh, au personnel du centre de santé parce que ñoom ñoo taxaw ñoom ñooy liggéey ñoom la métit bi di dal ci seen kaw donc ñoom bu ñu yuuxul woon xëy na peut-être lii du egsi di remercier personnel bi di jiital aussi ci remerciement yi suñu médecin chef district di Pape Ibrahima Camara docteur Camara di remercier comme ñi ko ñëpp waxee rek Adja Bali ndax mooy suñu lien ak euh, Ablaye Ndiaye di ko sant di ko gërëm wax ji du mën a gudd ndax defe naa ni lépp sa maîtresse wax na ko major wax na ko donc ñu ngi remercier ñëpp docteur Khady Diop di représenter le médecin chef du district de Tivaouane docteur Pape Ibrahima Kamara donc merci beaucoup